sant bu baax di ñaan Serigne moutakha mbak khalifa sall des mourides suñu borom yagal ko fi lol to may ko wër ma ngi sant bu baax wa Touba euh, ci fex gi ñu ma fekk si ci Mbacké Bawol ndax ko xol li rek xamna wa Touba gep dag nañ ngir ñu yee tek leen ci yoon ba ñu mëna jaar ci yoon lol nak euh, ñing ci sant bu baaxa baaxa baax yalla dogal na tourner nañ département bëpp dem nañ fépp tay nak ñu def suñu lancement euh, militants yi and ak ñun ñëpp. ak euh, soxna yi nga ànd xam ne ñooy mbootaay ñëpp fekk nañu fii ci ngir ñu def suñu point de presse wax fi ñu bëgg a féete avant élection yi 2019. dina sabab ndaje mi moo mooy élection présidentielle yi yu 2019 moo tax ñu daje fii ngir wax lu ñu naqari ak li naqari waa Touba ndax ñu waa Touba la leen waxoon dañu amut candidat amaguñu kandida ndax ko xool élection référendum bi bi mu fi ñëwee li tax ma. li tax ma njëkk a euh, euh, xeex président Macky Sall ba élection référendum bi amu fi dara ci ñi fi teg la ñi fi bàyyi la mooy ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci département de Mbacké ñooñu ñoo fi ñëw ah di leen nax di nax askanu tubaa moo tax ñu jëlee ko fi waaye du président Macky Sall na xam loolu bu baax ñaareel ba mooy élection législative yii jàll bu ko ñàkkee mouvement yow jot na moo tax mu ñàkk ko loolu ñëpp xam nañ ko waaye nag li tax mu ñàkk ko dañ ko koy leeral mën koo xam bu baax a baax mooy ñi fi teg ñi nga xam ne teg tekkiwuñ dara lépp lu dugg ci biir Touba ñu dugal ko ci seen bopp jox ko seen nit moo tax nag ñu dajale waa Touba gépp ngir xamal ko ne ko ñi fi teg moo ci département de Mbacké mooy tout ñu fi nekk ñëpp Touba ñëru leen tout Touba ñëru leen ñëpp nañ ko xam te nag dafa am loo xam ne ni daan lañ ko wax tuuti ñu mën ko xam Touba bureau de vote yi fi nekk yëpp ne président Macky sàll xam ne moom fenn fu ne ñun saytu nañ ko dugal nañ fa suñuy militant ñu xam bu baax a baax la fay dox ak la fay wér kenn mënut a biir Touba kenn mënu koo yàq wala mooy def loolu ñoom ñu waa mouvement yow jot ñëpp liggéey nañ ko ci biir département de Mbacké loolu na ko xam bu baax yoruñ leen luñ leen jox ñu def ko ci seen bopp luñ leen jox ñu tabax ko koy kër luñ leen jox ñu takke koy jabar lu ñu leen jox ñu wut ko oto yi rafet loolu ñun Touba dañ cee sonn soo demee ci marché Ocass lu ñuy wax dëkk bi dafa makki nga dem daralu Touba ñuy dëkk bi dafa makki nga dem hôpital ñuy dëkk bi dafa makki kon fan lañ jëm taalibe Sëñ Touba yi ñëpp sonn baykat yi da leen yërëm boo demee gar bu ndaw ku ci indi ñaari saako gerte nga am boo ko jaayee doo am sax 15000 francs ñu ne Macky def na fi dara loolu mënu ma koo gëm dégg nga fas yéene àndal mooy xoolal mu ku tege ci yoon rek moom Macky Sall bu tege ci yoon ñu jàppale ko mu gagné biir Touba tege ci yoon gi moo xoolal ñi fi nekk na leen jël teg leen fële xool ñi liggéey mu def leen ko sën yi ñooy liggéey biir département de Mbacké barke Serigne Touba mi ma yaakaar àddina ak alaxira Touba bu ko sensibiliser billaahi wallaahi wa taalaahi doo ko gagné loolu man fër laa ko teg